président Idriss Seck man mas na ma euh, recevoir këram. ñu toog di waxtaan. dama ko ne man mun naa mën a ko bu dee kër la. fekk nga sëñ Touba jox ma ko ci xesi yi. macha allah mun naa mën a ko bu dee ay oto la mun naa mën a ko sept carte grise am naa ko. mun naa mën a ko bu fekkee compte du banque la mun naa mën a ko am naa trois compte mun naa mën a ko kon wut siwu ma ci yow dépasse wala may wut si lu may lekk si. dama am ay rak. mënaa mane ko ñu ñu dugg ci xasida yi tama dem ambassade ñaani visa ba tàyyi ñu refouler ma lànk te fiñ may maye mënaa mënoo ko damay fekk ñu may vingt deux heures yoo xamante ne bii ne mënaa mënoo ko dañuy dem dong pour na ji wala nangam ñu may leen fi saase man ma dugal doonu jàngatu xasaayit samay kayit mat ñu war maa soxla bitim réew ma defa jàngee ñëw ñu récité ma mënaa ko kon loolu état bi am na ci part de responsabilité